boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ko يجعل له ما تفدوا أديما ليس غير الوطن ولا تغير النجاة أجوك يا له وأسقنا ماء من عيك سليما وسرته بالجنة تلغى يا له من كافر سبوسا خير ويهلكوسا كفر وينصر ما يحصل منصور يا الله علي يسأل وصل من دايم أبن دم ومن خبر الله بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñuy sant yàlla borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi sant bu baax ak a gërëm ak a jaajëfal cheikhana cheikh ahmadu bamba di ñaanal ki ko fi nekkal di cheikh mouhamadul muntaqa borom bi subhanahu wa taala yàggal ko fi lool te ak mboolem murit yëpp ak mboolem jullit yëpp di ñaanal Cheikh Abdou Latif Diène fi nekkal maam Cheikh Issa di ko ñaanal Serigne Souhaïbou Diène fi nekkal Cheikh Mouhamadul Amin ak mboolem kilifa yëpp ginnaaw bi ñu nuyu bu baax ziar waaye sant leen bu baax gërëm leen ci teewaay bi ngeen teew wuyu si woote bi mu nekk jataay boo xam ne yàgg ngeen koo ànd ak sët yi ñu yàgg koo woote ngeen yàgg koo wuyu si ci wuyu si bu rafet yàlla dogal ay xew-xew jaar fi bañ toog lu toll ci ñaari at amut ba yàlla dogal ñu tàmbaliwaat ko ci ren ji ñu nekk waaye mu nekk loo xam ne ñëpp àndoon na namm ko ndax tàmm guñ ko tàmmoon ci mboolem xeeti yiw yoo xam ne danañ ko fi jële ak ci daje bu jafe boo xam ne danañ ko fi daje mu nekk nag loo xam ni waxtu bi ñu ko taxawalit bett na lool bañ foogoon ni sax ren duñ ko war a mën a def waaye lu baax mooy def ñaare moom lu mu la bett bett rek boo ci ànd ak pas-pas suñu borom mën na ko sottal rawatina bu dee ci ab murit kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci wuyu si bi di lu jataay bi di dogal ngànt ci loolu ndox feeñ na ci mbir mi ni mu mbetteel gi feeñ na ci kàddu gi yëpp waaye teewul rek comme mbokk yëpp wuyu si na ñoo ngi ñaan tàmbali ko bismillaahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin xam naa dañu guddal kàddu yi ndax am na ay kàddu yu am solo yu bari yu fi war a rot ndax uh, ren ji seeti Cheikh Mouhamadul Amin yi dañoo tànnoon waxtaane loo xam ni sax na ci biir alxuraan nekk ci lenn ci qisasul quraan te borom bi digaloon ñu ñu koy jàng te di ci waaru ndax laqad kaana fi qasasihim ibra mu nekk loo xam ni comme nekk na ci alxuraan rek yàgg naa yitteel àdduna yàgg naa war ci nit ñi ci wax ak di ca dox fexe ba loola boroom bi subhanahu wa taala lam cay sàkku ci ñun te mooy ñu mucc ca waaye nam ko ŋàññee ñu ŋàññee ko noonu bañee ko noonu nga xam ni loola képp ku te ab jullit war na la rawatina koo xam ni dañ lay xoole kuy digle ak kuy tere loola nekk lu sax ci alxuraan waaye fan yi ñu génn it wala weer yi ñu génn mu nekk loo xam ni daanaka moo gën a nekk actualité ci biir réew mi ak ci mboolem télé yi ak rajo yi loola mooy li ñuy tuddee ak looxi yi looxi yi mo fi ko waxee mooy ak ngóor jigéen thème boobu nekk thème boo xam ni bu sax la ci alxuraan suñ borom wax ci ay ayaat yu bari yonent bi wax ci ay ahadis yu bari ñu tànn thème boobu ki ñu ko war a jàngatal ne koo xam ne miin nañ ko ci jataay bi di Cheikh Mouhamadou Fall génn balaa muy tàmbali waxtaan wi danañ xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ñu ànd ko ak Serigne Sidi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 خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو جئنا بمثل لي مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم ki ñu war a defal waxtaan wi di kenn ci ñun koo xam ne miin nañ ko ci yoonam nii miin nañ ko ay yëngutoom yépp nekk ay yëngutu yoo xam ne yu baax la ci lu jëm ci dox lu baax ak wax lu baax ak wéetal boroomam ne koo xam ne fi mu war a jaar ci am njàng jaar na fa waaye tam suugu yoonu tarbiya waaye itam di wëy di dund xam-xam ak diine te loolu mooy li nga xam ni ci la seen Touba Xaadim Rasul nekkoon waaw li mu waxoon ni ca xasida ga qaalul yarkan li abwaabi salaatini taxas jawaisa tuxni kulla ma xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wala suraadiya gayra al ilmi wa diini loolu mooy li nga xam ne ki ñuy bëgg a def waxtaan ci la nekk ñu xam aw turam tudd Serigne Mouhamadou Fall Diène di doom ci Serigne Bassirou Diène mu Serigne Mbacke mu mag waa juróomu jigéen tudd soxna Haram Fall mu tàmbali am njàngam ci kolobaan Saloum njàngum alxuraanam ci sëriñ bi ñuy wax sëriñ Massamba Diagne ba mu fa jógee mu dem ci Kajoor ci dëkk bu ñuy wax cëy cëy nekk dëkk boo xam ne amoon na daara joo xam ni waa njenn ñu bari jaar ci sëriñ bi ñuy wax sëriñ Mouhamadou Penda Diagne tàmbali njàngum xam-xamam ci roxol waajuram gu góor nekk rak ci waajuram bu góor di Serigne Cheikh Assou Mbaye ci la tàmbalee njàngam xam-xamam ah ginnaaw ba ñëw ne ci Serigne bi wax Serigne As Jaxate Serigne As Jaxate nekk ku ñu xam ci loolu nekk ab jaaruwaay ci boroom xam-xam yu bëree bëri ginnaaw ba ci Serigne Moustapha yi nekkoon borom xam-xam bu nekk Daarul Minam ginnaaw ba ci Serigne Abdou Salam Dieng ginnaaw ba mu dugg ci. jamaa seen Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma bi ci Touba ginaaw bi mu dellusee ci dëkkuwaayam mu soobu yoonu tabiyee ci ki nga xam ne moom lañ ko tuddee di sëñ Mouhamadou Fall Dieng ah, di tabiyee ci loxoom ba jóge fa loolu dañu ko sëkk te foofu mu nekkoon barab boo xam ne ab yemukaay la ñaare nit lu mu mën di def rek bu tërbiyaaw ba wàcce ko la mu njëkk xalaat mooy dem samp kër waaye mu defaat li ñuy wax laxas mooy dem sàkku ji xam-xam ci sa coobare bopp ak sa maya bopp ak sa gëm-gëmu bopp ci dëkk boo xam ni way laxas yu bari dem nañ fa mu ne woon si naanukaay muy Ndar nekk dëkkub xam-xam nekk dëkkub histoire nekk dëkk bu am solo ci réew mi waaye ci xam-xam waaye ci aada ak leneen ak leneen mu wàcc fa def fa diir bu yàgg ba mu fa demee lam njëkk def mooy li ñuy wax taxqiqul quran mooy wérluwaat alquranam ci sëriñ Malick Diop ginnaaw ba mu wéyal am njàngum xam-xam jaar ci ay sëriñ yu baree bare buñ leen doon lim fii jotaay bi day gudd kon ci gàttal rek loolu mën nañ koo tënk boobu ba léegi nag jógul ci jàng ak yaatal xam-xam ndax jàng tëral lu ay téere moom ay moyen la rek yu ñuy wut waaye ginnaaw boo ko amee nag yow yaa jàngal sa bopp kon yaakaar naa kooku buñ ko dégloo bu baax la nga xam ne moom la rootee ci barab yooyu mënu fee sotti lépp waaye bu fi sottee dara rek daañu ko mën a jëriñoo incha allahu yi tem bi ñu war a waxtaanee ñëpp la war a yitteel ndax dafa nekk thème boo xam ni suñ borom léerul ab sanction rek teg ko ci ki ko doon def waaye ab dëkk bu mat sëkk dëkkub lëm la ci borom bi subhaanahu wa taala alak alagin woo xam ni mu yéeme la kon mbokk yi ginnaaw ba ñu sàkk wàccee ak déglu alhamdulillahi alladi xalaqal insaan wa aqdarahu ala an yuzhira bil lisaan ma admara fi xubbil janaan wa salla wa sallama alxanaanul manaan ala sayidina muhammadin wa ala alihi ala sayidina wa mawlana muhammadin abdirahman wa ala alihi wa sahabatihi alfursan wa asna xadimihi dafi min durihi daril manan bokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal xaq di leen baalu xaq ci jéggalu suñu kilifa yu baax yi nga xam ni ñoom lañu toog fii ci seen kanam di leen ndokkeel bu baax ci jataay bu tedd bu texe bi nga xay ci majaalis sa saada la bokk te ngeen woote ko ngir jëmmale ko bisum sunu maam bu baax ji di Cheikh Mouhamadou Lamine mu ngeen di siyaare bu baax di sàkku ci yéen ñaan Eh. Cheikh Mouhamadou Lamine nag buñ ko tuddee faaw nu barkeelu ci moom ubbee ndax jëmm joo xam ni wayturam di Cheikh Aïssa kum bokkal kër Serigne Touba di Cheikh Ibrahima Diop al Nashari moo wax ci moom nii am benn ndam ci Serigne Touba rek ab cër la te muy Cheikh am na ci ay ndam yu bari waxit ni jige Serigne Touba ab cër la te Cheikh Issa na ci ay muqarraboonam ñi ko gën a jege moom Cheikh Ibrahima Diom masal mooy wax waxit ni am benn ngërëmu sëriñ Touba ab cër la te Cheikh Issa woon na ngërëm yi Serigne Touba yu bari waaye ak loolu lépp nag mu wax ni kenn mayu ko ko da koo liggéey da koo liggéey ba am ko moom Cheikh Issa moomu nag moom lañ ma wax ni moo mos a gis Cheikh Mouhamadou Lamine mii muy daagu ba woon ko ginnaaw ñamu toogal mu mu ni leen borom ndaagul ngëmeen lee lu mu am da koo kon nag liñ naa fala garwa an yaxdul fata xalba walidi am na ci ndax koo xam ni ña bokk ak yow sëriñ tubaa ñoo ñoo lim li nga am lépp ci sëriñ tubaa ni da nga koo liggéey ka nga am mu mag ci sa njaboot nga ni ko jàkk xool ko ba nii lu mu am da koo liggéey kon la war a am am na kon ñoom ñu ndokkeel ci loolu bu baax a baax di leen di leen ziar. daf waxtaan ak yéen ci thème bi ñu tànn nag muy thème boo xam ni bu doy waar la bu. xaw a naqaree waxtaane te neex a waxtaane ndax li tax mu naqaree waxtaane mooy boo dee gëstu ci téere xam-xam yi sax dafa xaw a kersawu ba ñu ciy bind bariwul waaye yàlla mi nga xam ni moo inna allaha la yi moom amul kersa ci dara moom moo ci bind moom ginnaaw bind na ci nag kon mënees naa seet fus ci jaar ba wax ci lu mën a jariñoo kon nag tomb yi ñuy waxtaane mooy loolu ñuy de liwaat muy jëf-jëf yi nitu loot ya wolof di ko wax góor jigéen walla jigéen góor ci jamono ñu koy wax homosexuel am ñu naa lesbon bu fekkee jigéen ak jigéen la eh, loolu dañ ciy waxtaane mooy kañ la fi ñëw maanaam loolu kañ la ñëw ci àdduna ak maanaam bi mu fii ñëw fan la tàmbalee ban béréb la jëkk amee ak ba mu fa amee lu ko fa sos ak bañ ko fa sosee lan moo ko siiwal ak ba mu siiwee ba ba jégg dayoo ba yàlla mënatu koo muñ kan moo ko dindi ak ka ko dindi lu mu ci daj lu mu ca doon wax ak yan nattukaay la ci doon jël su ko defee ñu mën caa jàngate ak bam deñee lu ko fi delloosi ak bu fi bi mu fi delloosee lu ko fi jële ak ku ko def lu ca war tomb yooyu mooy lu war a waxtaan eh, eh homosexuel moom wala lesbon ba mu fii am yàgg na ndax àdduna am na ñetti at am na ñetti junni at yu topp te amu fi bi sunu maam Adama ci kaw suuf toog àdduna dem na ba am ñetti junni at yu topp te loolu sa suwul kenn musu ko fee ñemee kenn musu ko fee def bi mu fi tàmbalee am ak léegi ci ba mu fi jëkkee am ba suñu jonne tey bi nga toll ci ñeent junni at ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ba mu tàmbalee am première mi tàmbali si ñeenti junni boobaak léegi ñeenti junni at la ak ñaari téeméeri at ak ñaar ak ñaar fukk ak ñaar kon yàgg na donte ba mu amee diiréwul lu yàgg suñu borom saafara ko ndax diggante yonent yonent yàlla loot mi nga xam ne mooy yonente bi ñu yónni woon ñoom pour mu régler ko digganteem ak yonent yàlla daawoot juróom benn téeméeri at la diggante yonent yàlla daawoot ak yonent yàlla Moussa nekk juróomi téeméeri at diggante yonent yàlla Moussa ak yonent yàlla Isa moom mooy yàgg te suñu borom yónni war fi yónni moo nekk junni ak téeméer diggante yonent yàlla Isa nag ak yonent yàlla Moussa mooy junni ak téeméer diggante yonent yàlla Isa ak Seydina nekk juróom benn téeméeri soo ko boolee ak fi atum wolof toll fi atum arab euh, amul arab yi fi mu toll mooy junni at ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñaar da lay jox léegi ñeenti junni at ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ba mu fi amee léegi foofu la tàmbalee bi àdduna bi suñu maam aadama wàccee ci àdduna ba suñu jonn tey ñu ngi toll ci juróom-ñetti te juróom-ñetti junni at yu manqué tuuti kon yàgg na fan la doon amee mi ngi amee ci béréb bu ñuy wax Cham Cham nag mooy Chimaala Makka mooy wetu càmmoñ gi féete Makka Makka wet bu féete càmmoñ moom la arab yi doon wax Cham dem nañ ba di ko wax sóoriya buñ ko waxee day xaw a mel ni da kajoor wala nga ni waalo dafa yaatu ay capital yu yaatoo yaatu nekk fa ndax Cham bi nekkoon euh, Dimask bi nekkoon capital bi foofu la féete woon euh, jumhuriyatu arabiyatu sóoriya foofa la féete woon euh, jumhuriyatu lumnaaniya fa la féete woon al mamlakatu al ordoniyatu wala islamiya fa la féete woon Palestine boo demee ci wàllu Yaman la foofu la frontière moom Palestine jëm booru Ordon kon gox bu yaatu na diggante boobu nag ci Saam ci dëkk bu ñuy wax Damas dafa am benn xur wu fa ne woo xam ni juróom-ñetti dëkk juróom-ñetti dëkk ñoo fa daje woon muy Sadoo ak Saadoo ak Sawaayim ak Amoraa ak almu almutafikaatu Salaas muy juróom-ñaar muy juróom-ñaari dëkk. ñetti dëkk yi ñuy wax almutifikaat ak ñeenti dëkk yooyu léegi nag foofee la mbir ma doon xewe ca ñooñi ñooñu nag ay yéefar lañu woon amaguñ woon diine fañ dëkkoon it moo gën am koom-koom ci gox boobu am na ndox mu neex am na yi am na xeet koom-koom yu bari yoo xam ne ñoo gën a jekk ñañ dëkkalal waaye gëmuñu yàlla amuñu diine ñaari façon dëkk yi nit dëkk ci saxlu bi maanaam ci désert bi ñi dëkk ci montagne yi xeer yi yett ci ay néeg ñi dëkkoon ci montagne yi xeer yi nag du leen suñu borom defat moo leen wutaleeg ay rab moo leen wutale bàyyi ma waaye daanaka duñu nit ndax duñ jaxasoo kenn dañoo toog fañ toog rek yor seen dëngte ñu dëkk ci désert bi itam toog fañ toog muy ñaari askan yu jigéen te duñ duñ jaxasoo waaye lu mu xam ci ndëng ña nga ca li ko li ko sos nag mooy dañoo dem nag ba si yow ndëng gi ba mu jéggee da Iblis ñëw fa yor jëmmi mag moo xam ni mu yàgg ci réew mi la dikk nuyoo ak ñoom fekk na booba ñu ngi koy romandaat di kar étranger yi nga xam ni dañuy yittewoo ci seen koom ma di fa ñëw di leen proposé lu ma noonu ak di leen ci siif di ca am ay jafe-jafe mu nga xam ne bëgg nañ ko waaye mën ñu see yaatu ci seen jamono nag étranger yi ay aalamina lañ leen doon tudde ñoom foo dégg ñu wax rek mooy bindee fi yàlla yi jóge feneen di fa ñëw waaye ku fa dëkk moom bokk ci moo wat xam ñu naa yonent yàlla loolu awalan nan xëkka anil alamin leen di accueillir ñu naa ko yow tere nañ la alamina yi ngay jël di leen fat ba mun ñoo jariñ mun ñoo jot ci ñoom baatu alamina lañ leen daan wooyee muy étranger yi fay ñëw ngir néew doole ngir wut lañ am ñu leen di kar ci yoon yi di leen imposé lu mel noonu bi seytaane ñëwee nag ni leen yéen bari ngeen am koom te man mag mu xam nawet laa at yi nu dëgmal dara du am xam nga nu ngeen def mun ngaa mu ah, ko dangeen di téye li ngeen yor bu leen ci mayeeti bu leen ci jaayeeti bu leen ci jëfandikooti lool lool suñ doxee tuuti ay at bekkoor dina am ndax ndox dootul bari fekk saytaane saytaane la ndax li tax mu ne ndox du naa dootul am mooy li mu gis ñu koy def xam na ne réew mu muy am rek léegi bekkoor am fa ci la sukkandiku wax leen loolu ndekete li muy wax mooy am ndax lañuy def day jur loolu su ko defee bu ngeen demee ba nit ñi amatuñ dara seenu ñëw fi dana bari te bu ñëwee li ngeen yor bu boobaa na ngeen leen santaas ku ci nanguwul ngeen jëfal jëflanteeg moom ci wàllu liwaat bu leen ko jaay dara bu leen ko jox dara te buñ sonnee ba tumuraanke danañ ko jëflanteeg yéen duñ ko sañ ñu ne ko yeex nga fay ñëw ñu ne ko yow moom yeex nga fay ñëw moom mag mag naa ba ci dëkk daal di def lam wax def li suñu borom gën a bañ muy ihtikaar maanaam yor lu nit ñi soxla woo ci xeetu marchandise bañ koy soxla nga denc ko di ko denc bañ tumuraanke ko nga génn ko pour mu mën a seer kooku la yàlla gën a bañ ci xeetu jaayin moom lañ seytaan yi proposé ñooña ñu daal di koy tàmbali def ko bañ ko dencee yàlla dogal na ko waxe amee ndox laalatu suuf bekkoor gën a am ñu sonn sonn sonn ba la fa des a néew ci koom ci seen loxo la nekk ba mu nekk ci seen loxo nag nit ñi di ñooñu ñuy tudde ay alamin mooy ay tracé yi di leen jóge ci wat bu ne di fa ñëw ñu leen di santaas ci loolu banaa ko fee jële dara dañuy séq ak yow lu mel noonu waaye taxul mu mu bari lool ndax ñoom it dañ leen di moytu dañ leen di moytu ndax ñoom it ñàkk pexe tax waaye gën a lu leen iblis dellu si fa dem ca diggante ñaari bërëb ya muy ca ñu dëkk ci xeer ya ak ñu dëkk ca joor ga mu mu créé loolu ñuy wax instrument musical yi ngeen xam lu ñuy wax réeti wala xalam wala guitare wala moo xam lu ci instrument yi ba mu ca defar daa dem ba ci béréb bu yaatu ci peggu diggante ñaari way dëkk yooyu nga xëy jaxasoowuñu mu daal di ko koy fëgg bomb ko fa bu baax ba mu ko fa bombee rek ña dëkk ca xeeree góor ñaa jigéen ñaag mag ñaag ndaw yëpp xool bari dem wa wàlli ji ko ña dëkk ca deseer bay def noona mbooloo ma naat fay daje nag gisante te daawuñu gise ba noppi muy guddi nag pëccëxoo ba tàmbali góor ña fitnawuñ ca góor ña jigéen ña fitnawu ca jigéen ña la góor ñee def tudd liwaat la jigéen ñee def tudd si xaq aha léegi nag yëfi jéggi dayoo nag suñu borom mënatu koo muñ nag fekk na booba yonent yàlla loot ma nga ca kër yonent yàlla ibrahim ndax yonent yàlla ibrahim bi ko suñu borom yónnee ci itam moo leen dañoo taxaw weddi ko ban ku di ko jéem a lor moo jóg loxoom gëm ko ànd moom fu mu léegi nag te loolu it mbokkam la ndax loolu xaaraan moo ko jur te xaaraan taarix moo ko jur taarix moo jur yonent yàlla ibrahim kon doomi magam la li ñuy wax ni kilifa ci kër ci kër kilifa lay génnee fekk na lool bi nekkee ci kër yonent yàlla Ibrahim ba jot ashuddahu wastiwaahu nga xam ne mat na góor yàlla war naa mën a saytu yàlla dara am ñeent fukki ci la problème boobu posé wu foofu noonu ci juróom-ñaari dëkk yooyu yàlla jël ko rek def ko ab yonent yónni ko ci ñoom biñ ko yónnee ci ñoom bi mu ñëwee ku taxawal yàlla nam def noonu la tàmbalee mooy boo ñëwee problème bi tax ñu yónni la ci ñoom bala mu caa liñ seq ak yàlla day jëkkee ak ñoom pour maanaam ñu gëm yàlla ba noppi te gëm ni ab yonente bi yàlla la e, gëm ni du fen du wor du nëbb dëgg ba noppi ragal yàlla te wéetal ko biñ dikkee loolu leen jëkk a proposé kadabat qawmu luutin lil mursalin id qaala lahum axoohum luutum alaa tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuun wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya ila ala rabbil loolu leen wax gëm leen yàlla te wéetal ko te jaamu ko ragal ko te topp ma maanaam te te may roy ci ni may def lu may def ngeen di ko def lu ma dul def ngeen bañ koo def yomb na nag ci yéen ndax laaju ma leen ci pay man lañ ma ciy fay yàlla moo ko yore loolu leen wax ñu ne pat faale wuñ ko continué ca leen nekkoon waaye déranger wu leen ndax li muy wax moo koy wax rek te ñoom du mooy bu commencé laal la ñuy def mu daal di ni atattuuna dukraana min alaalamin wa tadaruuna maa xalaqa lakum rabbukum min aswaajikum bal antum qawmun aduun mun waaye yéen yéen de nekkate da fee nekk maanaam di jëflante góor ak morom ja ni fi ñëpp ñu yàlla bind ngir ñu nekk ay soxna pour aka ngeen dëng mu wax loolu bi mu waxee loolu commencé laal daan yàlla nee na ngeen bàyyi ko mënta ñàkk pour ngeen bàyyi ko bi mu waxee loolu liñ ko ci tegal mooy la in lam tantahi yaa lootu la takunanna minal muxrajiin ni ko li ngay wax nii boo ci deful attention dan lay génne mooy yow moom dan lay génne moom foofu nag am nañ fi taxaw seetlu mooy léegi comme ñoom bañ nekkee majorité ka ñëw di ca wax ñoom dañ ni dañ koy génne bu jamono demee ba mu yàgg ñu nekk minorité bareetu nu nun nu bari ñun nun leen def ku neen génne da nga leen a fay bor ndax loolu ba mu waxee loolu dañ ko ne lam tan tax yaa loolu tëkku naa ne minal muxrajiin ndax amoo fi doole boo deful attention dañ lay génne kon ñoom buñ fi afu amul doole ñun léegi nañ ci def xalaat kon benn loolu daal ni leen atatuuna al fahisata wa antum tubsirun ni leen yéen li ngeen def seet ngeen ko bi ngeen ko commencé def mu ne tàmbalee am bi ngeen ko commencé def réew mi ni kàkk bekkoor commencé am kon yéen a nga gis mbon gi fi saasi wantum tan suum wantu tur firum waaye faale wuñ ko mu ne leen ay innakum la ta'tuuna rijaala wa taqta'uuna sabiila wa ta'tuuna fii naadikum munkaa mu ne waaye léegi lu tax ngeen di taxaw ci yoon yi di cargo yi di def lewaat te lewaat xamu leen ni xat au sabilimu nasili la mooy dagg am njur la dagg njurum doom loolu ñuy tudde pare ni planning familial day dagg njurum doom ndax saa bu lawee ay doom dootul bari ndax fasul borom jiru doom war saa génne du foofa te yéen kon li def mooy dagg maanaam njurum doom kon léegi li ñuy tudde planning familial fi mu nekk nii sëtu sëtub góor jigéen la maanaam mooy maamam góor jigéen maamam sëtamam loolu leen wax tax wa taqta'uuna sabila jooju ñaari anam la taxawee boo demee ci alquran mooy espéré wu ñu espéré wu ci àll bi di kar nit ñi di leen proposé loolu ci xat la ak dagg yoonu doom yuy juddu ndax góor ak góor jigéen jigéen kooku xat u la mu leen lu gën a bon nag ci la loolu ci bokk léegi bàyyi leen ko ba ba noppi nag am na lu yàlla bañaat wa taatoona fi naa déeku mu mun kara mooy seen penc yi loolu seytaane créé woon bis bu ne ngeen woote fa ay concert yoo xam ne ay góor ak jigéen a fay daje di pëccëxoo mu nekk anam googu loola dafay bari lool di fa amee loolu bàyyi leen ko loolu tàmbali na nga xam ni nañ ci def taxaw seetu kon loolu mi mi ngi def responsabilité kilifa ndax liñ mu jëkke mooy mi ngi ciy wax mi ngi ciy wax li ci war a wax léegi nag bi mu waxee loolu ñu ni nag ah léegi comme dañ ko proposé woon dañ lay génne nañ waxtaan ñu dem waxtaan ci seen i penc ba yeggal ni axrijoo aala luutin min qaryatikum léegi nañ ko génne kii moom nañ ko génne bu mu fi yaatu ñun leen waaw lu tax ñu koy génne moo waa këram ñu ne mu ñu ne innahum unaasun yatataharoon dañoo laab tey sellale te nun yàqu tey yàqe kon duñ ko xajoo dañooy laab sell tey sellale innahum unaasun yatataharoon loolu mooy seen problème kon dañ leen war a génne ndax nun mufsiduuna lañ dañoo yàqu tey yàqe awaay ndaw nuróog ndaw nuróog la nasaraan ya defoon Serigne Touba bañ koy génne axrajtumuuni naatixina bi annanii abdul ilaahi wa innanii la mujaahidun fa maqaalukum haqqun wa innii jaahidun laakin li wajhi llaahi jalla ujaahidu laakin ujaahidu bil ulumi wa tuqaa abdan xadiman wal muhaymin shaahidu bañ koy génne liñ ko génnee mooy dangay jaamu yàlla di liggéeyal yonente bi ba noppi di jihaad mu ngeen wax ngeen dëgg nag waaye jihaad gi ngeen di leen tax di wax tax nekkuma ko xa jihaadum fu mu ndomb tànk pour yooyu fu mu réew bil ulumi wa bi tuqaa ci laay jihaad mooy nit ñi xam yàlla te di ko jaamu te ragal ko te dinaa ko gañe waaye nee nañ ko loolu yow problème da da génn ci lañ ko génnee kon du doon naag bi ñuy axrijoo alal wa min qaryatikum innahum unaasun yutahharuun nañ leen ndax seen problème mooy dañoo laab di laabale te nun danoo sell danoo danoo yàqu di yàq ah léegi bi ñu waxee loolu nag ni ko jàkk loolu ni ko nag insina bi azabillahi in kunta mina sadiqin léegi ginnaaw nee nga yàllaa la yónni te am na mbugal mu mën a fajo li nekk na ñëw na ñëw aha nag léegi yonente nag boo ko waxee loolu téeñal ko ni ko bu la yàlla yónnee bu dee dëgg defal nangam mu gis bopp loot ni rabbun sun yàlla xawmin mufsidin suñ borom maa ngi lay ñaan ñu yàqu bay yàqe ñii nga dimbali ma ci waaye yàlla nag dafa diib du caagin da ngay wax noonu rek affaire bi ñëw il faut mu bàyyi la def ses efforts ba jaaxle ba ne kàq ndimbal li soog ñëw bi mu waxee loolu suñu boroom daal koy dégg waajal ko pour ndimbal li waaye ñoom xamaguñu loolu. yàlla daal di wut fukki malaayika ak ñaar boole leen ak jibril muy fukki malaayika ak ñett li tax nga xam ne yàlla rek reconnaître na kilifteefu diine kilifa diine ca ñamu yilif kilifteef ga lu yàlla jox cër la. Eh, ba mu daataan yabal malaayika ñuy dem ca nitu lóot di fa fanxaate comme lóot ci kër yonent yàlla ibrahima lañ ko jëlee da kon da leen ne na ngeen jaare ca yonent yàlla ibrahima këram su ngeen demee ngeen yëgal ko li ngeen war a defe ca kër lóot ndax mooy kilifaam ba mu yëg ko ba noppi waaye li lay xamal ni xat u sabiru nas bi maanaam do la gën a naqari yàlla ca mbir ma ba mu di ko faje noonu mooy dagg gi ñu dagg wurum doom mooy kere ba leen di yàlla yónni da leen di yóbbante waale doom ji war a juddoo ci soxna si yonent Yàlla Ibrahima amal na juróom-ñeent fukki at ak juróom am juróom-ñeent ak juróom-ñeent waaye bi yàlla yónnee malaayika yi saafara ji loolu dafa ërte eh, gi ñu ërte ñoom dooma ko naqari ba da ko ni boo demee ne ko soxnaam soosee sax dinaa ko may dina am doom pour ñoom ñu amee ci lisaanul xaal xam ni li ko la tuuse suñu borom ci mbir mi mooy dagg gi ñu dagg li ñuy def néewal gi muy néewal doom yi juddu ñu ñëw jaar ci Ibrahima nuyu ko mu gis leen ñu di ay waxambaane mu defe ni ay gan lañ mu dem reyal leen ab xàbboon dikk teg na mane woon gan bi lekk desee mu gis ñuy raay rek kenn daggul mu tiit defe ne ay sàcc lañ ndax boroomu jur la woon eh, léegi nag saaratu commencé bëgg koo ree ndax ni muy tiite nit daawu ko def tasanteeg ñu naan ko sa borom ñu ngi yónni ci nitu loot ñi ndax ñoom dañoo sikk lool di def aw ñaaw téef nu war a leen alag te fajar lañ leen di alagi munoon nañ fi jaar yaay kilifaam yi yëgal la ko yóbbante waa ñu ne sa doom sa soxna sii di saarata dina am doom saarata dégg loola te fenteen mu doon roy Ibrahima ci situation boobu noonu ci ragal gi bi mu ne tekkal dee baax bi ne sa teer ci tànk yi mu bes boppam ni ah ndax man damay am doom màggatum juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett sama borom kër ñeent waaye fekk loola mooy am da koy am ndax yàlla daa mer ci dagg dañ dagg juddub doom fee ba bi ñuy ñu koy dindi ji doom la may fu mu waroon a jógee fii ne is eh, eh, eh, Isaaqa min mawaahibil ilaahi la programme wuñ ko woon maanaam saaratu programme wuñ ko pour mu am doom waaye yàlla moo ko def automatiquement rek mu nekk min mawaahibil ilaahi may ko ko moo tax ci alxuraan foo gisee mu koy tudd dafa naa woo xam naa loolu Isaaqa te Ismaayila doo dégg mun ko mu ne woo xam naa loolu Ismaayila ndax Ismaayila dafa jaar ci ordre maanaam dafa jaar ci nizaam kenn ak moom. moo waxi bu ilaahi moo tax wa waxam naa lahu isaaqa la wax isaaqa jur yaqoob mu ni daa ko koo dolli wa yaquuba naafilatan nga xëy bu juddoo ci isaaqa luñ dolli ca may ga la koy tudde ngir rek wan ñeeni li ma gën a naqari ci li ngeen def mooy dagg njur gi malaayika yi daal di tàggoog waaye gis ngay kilifa danañ fi am tuuti luñ seetlu mooy kilifa yi dina baax ba lu njaboot def def def jëf ju juunu suñ ko ko waxee wax ko ca sanction bu metti buñ ko war ngir mbaaxam ngir gëm yàllaam ngir yëngu dina waral faaw mu jëm koo defar intervention ndax am na loolu yàllaa ko man waaye doomu aadama bu baaxee rek ndeysaan day day gaaw a bëri yërmande Ibrahima commencé di defal nit ñi intervention ndeysaan yërëm loolu loolu commencé di defar su loolu amee ci kilifaat na mala yi koy def la nit la la la borom luwaa bi war def mooy ba ci Ibrahima waxee ñoom di defar intervention dañ ko ni ko ni lii da baax rek ndax yow la awaahum eh, la xalimun awaahum munib nga dangaa lewet baax bari yërmande waaye ki nga ñii moom bay boo bàyyi rek ndax def nañ ñaawteefu fopp mbugal mu jëm ci ñoom kenn mun koo wiñ Ibrahima xam ni kon lu waa bu xasee jóg kon lee eh, mën ngaa la sa xol en tant que kilifa ku baax waaye nag lu waa bi ni ko dañoo war a wéer la ñuy def ndax adduna bi ci kanam a mu génn ca mbir ma waaye mu xam ne am na fa kenn nag muy loot ak waa këram mu ni ko waaw léegi loot nag mun leen inna fiha luutan mu jël leen waaye loota nga fa ñu ni ko loot dara du ko ci xuri moo danañ ko muccal moo xam nga loot benn so ñaari soxna la amoon ak be ñaari doomu jigéen muy Risa ak Samura eh, ak beneen soxna bu doy waar buñ naan meer waa ila meer waa ila nag moo doon naa ba ndeysaan ka ca des nag moo baaxoon ñu ni ko ko muccal moo waa këram dara du ko xuri ci mbir mi ba mu des nag jigéen ja ca kër ga nga xay yàlla sax nangu ko tudde ala zawjiyati nangu ko tudde duñ tudd ab soxna illaa amraatahu ba mu des jigéen ja ca kër ga nga xay taxaweetu fa taxawaay bu yàlla da koy sàllalu léegi jigéen ja ca kër ga ba mu yàgg mu naa illaa ajoosan fil xaawilin ba mu des meer ba nga xay yàlla da ko sib sone ba du ko tudde ala zawjiyati di ko di ko di ko taf ci ci ci ci loolu loolu nag dinay am ndax soxna ñaare bu taxawee lu mu jege jege kilifa bu taxawul na mu war a taxawee da ngay gis ñu koy wooye yenn tur yi fekk ci moom la léeg-léeg nag muy ca yaradiku ña koy woo waaye léeg-léeg ci moom lay doon foofu am na lu ma fi seetlu ma mos a dem ngir ngi néew fekk fa kilifa bu mag mu toog ci kaw en tant que man jenn sax damaa toog ci suuf ndax dama ko war a toogal suuf mag ñu bari ne fa summi seeni mbaxana lal ci seen bopp yóor am as as bi mu tuddee desket su tuuti jaar fa sol as cëpp ak as bodi as caag ba tolloo buntu ba buntu place bi ñu nekkoon ni ko jàkk ni ko sama grand na def mu mu ne ci yàlla jëlu de mu ne ko grand na def gën naa laa gis mu ne ci ba mu ñeenti yoon mu jàll ma topp ci moom ba seen ku ko xam ma ni ko waa xam nga ndaw see mu ni waaw ma ko waaw moom kilifa gee dafaa taxaw di ko wooyee noo xay moom daa wax dëgg doy na waar mun maa ah, kee da sëñ sëñ ndaw si ci cinéma bi la ko xam ndax sëñ bi day dem cinéma nga xam ne day am tur bu buñ la koy wooyee daa am lu ko waral moo tax yàlla buy tudd maire bi léegi jigéenu lóob bi rek lay wax wala mu ni màggal ga ca kër ga waaye nunga ko tudd àla saw jieti te soxna yonent bi saa bu leen ci tudd way sa saram nabi la baat di azwaaji nii lay wax pour li azwaaji ka fu mu koy tudd ay zawji la leen di tudde parce que ñun ci lañu waaye aca léegi nag malaayika yi nag daal di tàggoog ibrahima nag daal di jàll Sodom nag te Lóot bañ yeggee ñu ñu déglu baax nag euh, matukaay yi Lóot saafara góor saafara góor jigéen bañ yeggee ñu nuyu ko loolu jóg tiit lool ñu ne ah xaasaa yow mun a asib ñu leen tey moom du yomb ndax yéen xanaa laaju leen gox bi ni mu mel fii moom dañoo yàqu de bi ngeen fi ñëw guddi ak nii ngeen mel nii ah tey de moom dinaa ma leen di accueillir moom waaye jàll si leen daal di dugg ñoom ci biir nekk meer waaye la moomu soxna soo su nga xam ni mooy aaw bi te teewul ci yoon am na lu mu wax ak waa dëkk bi ni leen saa bu ngeen gisee ma yónnee korom su guddi rek ay gan ñëw na fi su ko defee gan ñooñu dañ mbedd mu nekk yoon wu nekk day am ñu fa espéré wu pour lu mu guddi guddi bu ñu ñibbi ñu kar leen def ak ñoom noonu moom daawu ko def ndax soxna si yonente mënta mooy yàlla waaye da doon makkaru da doon def maanaam saa bu fekkee see gan rek yónnee ni ngóor sama yónni ko demal nee leen nañ ma may xorom ñu xam ni gan a ngi su ko defee ñu commencé lësëm lësëm yi ci wóor kër gi ba xool ba mu wóor leen ni am na ñu dem ca mbedd ya tërlu fa bañ génn fuñ mën a jaar dajee kuréen kuréen kuréen kuréen kar léegi nag eh, bi kan ñooñu nuyoo nag ba yeggal ba dugg ci biir toog te loolu xamagul ni ay malaayika lañ ndeke ñu dugg rek meer waaye la daal di yónni ngóor sa ni ko demal nee leen nañ ñu may xaram si tuut mu gis gaa yi la son berse mi di wër kër gi di romb romb lu ba mu yàgg ñuy fëgg pour bëgg am lu leen leer si dañ ni loolu taxaw ci bunt bi ni leen lu mu doon ñun ko dañ laa soxla mu ngeen damaa jàpp ñu të foofu nag loolu jël na fa loolu jël na fa nag ay matukaay loolu jaaxle lool natukaay bi mu njëkk a def mooy loolu kilifa yëpp war nañ koy bàyyi xel mooy li ñu tudd ay aadam yi ne nga xam ni ñoo ñoom xawoon nañ koo bàyyi xel mel ni lu ko bëgg a gëm di jóge ci peeteer yi di ñëw fi ñoom di fi wut ci xéewal day njabootam gëmuñu ko donte gëmuñu ko jàpp ne leen ay njabootam ndax yàllaa ko yónni ci ñoom mu jàpp ni seeni doom yi jigéen ay doomam lañ li mu jëkk wax nit ñi mooy haulaay banaat yéen kuntum faa'iliin léegi sama doomi xeet yi nga xëy aw jigéen lañ samay doom lañ ndax seen kilifa laa am naa droit ci maye leen yombal leen kaay leen ma yombal sëy yi may leen ci ñooñu ngeen ami soxna léegi jàmm ni day ñu lànk mu gestu ñaari doom yi mu am muy Riisa ak Sangora ni leen xawlaay banaat ya a at xaru lakum ñii moom samay doom yi boppa ñoo gën a laam ñee sax ndax yéen a ko waxoon yéen a ni woon unaasu yetta taxarun kon ñoo gën a laam ñee kaay leen ma yombal leen may leen ko léegi te ngeen ngeen bu ko defee ngeen euh, ngeen toog bàyyi lii bu ko defee ngeen ami soxna pour yombal sëy yi léegi ñu lànk loolu ñu leen ittaqullaaha laa tufsuuni fii dayfii alaysa rajulun rasiid mu ni waaw bu leen sama gan ñi fekk booba loolu mi ngi jeeneer ci baatin ni sëriñ dana mos a ami sëriñ mooy bokk ci aw nit doo ab yonante waaye nga gën leen a jub dàq leen a jaamu yàlla di leen digal mu duggee ci tooxi doon na nga génn loolu xam laaj mu laaj ba xam ndax amagul na mu leen alaysa minkum rajulun rasiid xanaa sëriñ amagul ñooy tekk fekk amagu fa fekk loolu jeeneer na ni dina mu sa am waaye mu koy laaj ndeysaan te dikkagu alay rajul rasul amu fa mooy koo ci yéen lay bokk du yonente waaye moo di gën dàq leen jaamu yàlla du ngeen digal lu baax du ngeen tere lu bu ngeen duggee ci lu mel nii mu yomb lool pour mu génne leen ci waaye bu fa amul bu ngeen fasee mel nii day naqaree saafara fekk amu fa loolu daan ni léegi matukaay bi ci des mooy léegi naa xool bu ma sama njabootu bopp ak sama doole bu ma mënee génn jëflante ñoom na nii bikum quwwatan mu ñu waaw léegi naa xool bu amee kattan pour man ak samay doom mu xool amul lu ñaari doom yi jigéen amul sax góor te gaa yi bari loolu sottiwul nga xam ni loolu bëggoon na ko mu daan ni awaawi ilaa rukunin shadiid wala boog ma am famille bu yaatu wala ñoo cota gëm ñoo xam ni ful lay doon ma génnee mën a jëflante ñoom mu xool xool xool amu ko pexe amul matukaay yi mu war a def lépp na wax na bëgg na yombal sëy yi ci doomi boppam ak doomi xeet bi ñu ko yónnee yu jigéen yi ñu bàyyi la ñuy def mënul nekk mu bëgg a jëfandikoo dooleem amul doore mu bëgg a soit majorité bu mu am amu ko foofu nag mu jaaxle nag tiit ci la ko Jibril soo a feeñoo nag ca biir kër ga ni ko nag gars yi commencé daal di war a bëgg a yéeg niir bi tàmbali yëpp Jibril ni ko bul tiit ñii lu ñuy fexe du sotti duñ duñ fi dugg mënuñu fee dugg nun ñi ay malaayika yi yàllaa yoon nii pour fajar nu la problème bi keroog lu daa yàkkamte ma ni ko al aana al nay léegi nay léegi ndax jaxasoon na ba xamatul waxtu wi toll malaayika ni alaysa subhu bi qariib ñun ko su suba soreetul muñ rek muñ rek gars yi commencé yëg niir bi jibril noonu mu def rek mu xaw a yël bu rek ni loxo mu waay as ngelaw ñu leen ca jiif ñu ñu daal cël maxa ni cëpp daal ne nag róot nag moo dàq jibar ci kaw suuf ñëpp nag ndax jibar na nit ñi nag léegi tax man ba ba gisatuñu nag kenn ku ne nag di wër sa kër mënatoo faa dem waaye fekk suñu borom da leen a mosal tuuti ci problème bii bëgg a daal ci seen kaw moom la alxuraan di wax ni wa laqad raawaduuhu an dayfihi fa tamasnaa a'yunahum fa dhuuquu nga xëy de am mosal la léegi nag da da Jibril nag ni ni ni léegi loot sa boroom nee na nga bagaasu ànd ak sa njaboot gi te na leen jiital topp seen ginnaaw te lu ngeen mënta ñàkk jël ngeen jël ko su ngeen génnee bu leen fi dellusiwaat ndax mbir mi fajar la yem léegi fa mu leen digal ngeen dem fa mi ngi leen digal ñu jëm Quds ak Ordon côté Palestine ci suuf su naat suuf suñu borom daf ni jannataani an yamini wa shimaalin kuluu min rizqikum yooju mu doon wax noonu foofu fu neex foofu la ko ni ngeen dem fa léegi nag li lay ni mer la normalul mooy daa faral daa yow ci ëtt ba lànk bañ a dem di leen yàq lu mel ni mu xëy di leen yàq lu mel ni mu xëy léegi nag loo loolu daal di bagage nag ànd ak benn soxnaam bi ak doom ji Reysa ak Samora di daal di génn nag wuti wuti course nag biñ demee ba génn tund dëkk bi léegi Jibril daal di fam ñaari laa fi yoroon ko ca suuf sax tund wala wax de ndax juróom-ñaari dëkk yi dëkk bu ci nekk téeméeri junni dëkk na fa mu juróom-ñaari téeméeri junni nit moo defoon ci moo doon population ba juróom-ñaari téeméeri junni nit Jibril ron ca suuf laafee suuf sax ni ko dañ nit yëkkati ko ba bu ginaaree sabee waa asamaan di ko dégg mu wëlbati ko dafay tegoon kaw féete suuf jirib léegi nag moo tax mu ne wala maa na jaal euh, na euh, suñu xol suñu alquran nee na ba mbir jotee suuf sa lañ yëkkati ba kaw ñu ko jirim la féete woon suuf féete kaw moo tax wolof yi naan góor jigéen jogganteeg moom tànk daa araam yàlla waxu ko nag borom xam-xam it waxuñu loolu waaye da koo nuru lool nag li mu def da koo nuru ndax li tax fi doon daagu mu jëlër bi ko mu féete suuf nga xëy booy dox ci suuf doo dox fu ñu doxoon da koo xaw a nuru mu des nag nga ay français ya nga xam ne dañoo tukki woon te ñëwaguñu te bokkoon ci jëf-jëf daan def lu mel ni loolu lu góor jigéen boobu te ñëwaguñu suñ borom am na béréb bu ñuy wax saxlu wala sabxatu am malaayika moom nee nañ si jiir la tudd ay xeer la ko dénk suñu borom dem ci xeer yooya xeer wu ne mu bind ci turu kenn ca ñëfa newul adressé ko te wiise ko ci moom def li nga xam ne mos leen koo dégg mos leen koo mooy taw xeer suñu borom taw xeer ratatatat kenn ku ne xeer woon adressé woon ci yow fekk la fa nga ne ni suwaax ci sa kaw te xeer day mel ni ban tàng jër mel ni beteex bu la daree da nga ànd ak moom seey ba ñoom ñëpp ku ci ne saw xeer ca taw boobee la fekk fa ndax jeex nañ mujaahid nee na mu def kenn ku nekkan màkka mujaahid nee na desan na kenn màkka la nekkoon di fa lijjanti soxla te màkka xaraaman aminan la maanaam xorom ja dafa wóor am sécurité suñu borom dafa def mbugal mu mel noonu ñu bàyyee ndi ko fa mu toog rek ba mu fa toogee ñeent fukki guddi nag ay yitteem mat mu ñibbisi ndeke mu génn xorom ja rek fekk aw xeeram daa tagaan woon ci diggante asamaan foofu suuf ci la ne suraax ci kawam monsieur yi booba la booba la fi lesbon yi jeexoon ak ak ak ak homosexuels yi lañ fi jeexoon léegi seeni wax daal di jeex nag yem foofa waaye nag fi ñu def taxaw seetlu mooy waajooju nekkoon màkka kerek aw xeeram sekku ko fa mu ne ndax màkka dafa nekk béréb bu araman amin la ñuy waatu waa war nañ ci am taxaw seetlu gis nga fii sëriñ Touba moo ñaanoon boromam ni ko wajaal harimana hariman amina bokkum bi hibrihi kafil damina nda koo ñaanal ni ko nan ma ko defal comme xorimu màkka mu nekk haraman amina moo tax léeg-léeg nga gis ku defu tooxi doona ba xajatul fa mu nekkan mu ñëw nit yuux biir Touba làqatu fi ne fi su boobaa nag war nag nañ koy may bët bu baax bu fekkee daa saafaroo ba ñëw fi ñu tolloo rek dëkk ak moom bu buñ gisee mu yàq woon ba noppi bëgg a yàqee nag ñu seet ko sànni ci àll ba ndax fii mën na fay yàggatal fi yàqu leen ndax xanaa man aminan la da la nga dégg ñun diw de ma nga Touba kër sëriñam dégg naa daa këpp kees te tànk mu fii ne doo doo dégg dara waaye boo dégg mu génn fi rek ay fan yu ñëw ñu ne dégg teg nañ ko kon ci dëkk bi la suñ gisee ko mu xamul te jubadi jëlee ko fam neen ñu may ko bët bu fekkee jubadi ga daa demul ci moom ñu teel ñu teel koo sippi sànni ndax gis nga waaje toog na nag ñeent fukki guddi aw xeeram di tagan tagaanu asamaan ak suuf ngir béréb ba mu ne waaye ñi ne ci béréb bi nag ñoom ñooy xam ñooy bañaat defoo ku mel noonu te eh, kon su ko defee noonu loolu suñu borom wax na ko ci ñoom kon booba lañ fi jeexoon tàkk boobaak léegi toll ci ñeenti junniy at am ñaari téeméer am ñaar fukk ak ñaar léegi li ci des mooy léegi lu ko lu tax mu dellu si lan moo ko fi delloo si tomb boobu moo ci des ak lan moo ko fiy jële li ko fi delloo si mooy saabatu ziwaaj wa kasratul bataala wa xubbul maal wa kasratu ixtilaati rijaali wa nisaa fi lmalaacibi wa shiddatul faqri wa muassasatu taqsidil wilaadati alif nuun siin faa tudd seen tur Eh, wa adamu tarbiyatil ayaali tarbiyatan rabaniya wa xultatul olamaa yi bi salaatiin lii moo ko fi delloo si mooy lan mooy sëy yi mooy seer maanaam soxna moo yomb suñ ko waxee comme yomb nag du ko gëm waaye ñoom yombul moom xam nañu yombul am na ñu bari ñuy def lu ñu war def dañoo toog a toog a toog a toog ba mënuñu xamuñu fi jëm dégg kon loolu suyee na ci naka noonu chômeur dafa bari mooy war a liggéey te liggéeyoo amoo loo liggéey nga toog loo nga toog ba pare bëgg xaalis bëgg matériel loolu si yéene ci li ci li ci tegaat mooy góor ñi ak jigéen ñi li ñuy faral di jaxasoo ci concert yi tam bari te jigéen lool ci bérébu fowukaay yi ndax loolu la ko seytaane sose woon te loolu bari na lool bokk na ci li ko fi delloosi bi ci des te du ah, bi ci desaat mooy peuple mooy ñàkk gu tar suyee na ci bi ci desaat mooy fondation bi nga xam ni moo tëral maanaa limité njurum doom te lam bëgg dëgg mooy li système bi góor jigéen di doxee mooy ba doom bañ juddu sax nag far waaye la ah, maanaam organisé bi moom ay wax la rek ñoom nag alif nuun siin faa laa leen tudde yéen xam nag nu mu tudd mu assasatu alif nuun siin faa li iqtisaadi lu laa de ci alif nuun siin faa seen fondation boobu moo góor jigéen ñoo bokk benn saal bu ñu leen waxtaanee góor jigéen satama loolu bokk na ci li ci suyee ak lan ak ñàkk yar gone yi nag yaru tarbiyatu rabbaaniya mu yar bi yar bi eh, waa kër Serigne Touba yii ak seexam si doon yaree loolu moo bëreetul waxuma tarbiyatul asriya de yarub àdduna rek mu xam ni muy solo silvisé mën a lijjanti àdduna mën a lijjanti xaalis éloquence taxul may wax xel mu baax ak xol bu fees dell ak yàlla loolu laa wax xel mu baax jaxasoo nit ñi mën a lijjanti àdduna ba noppi di yàlla kese loolu moo amatul mooy tarbiyatan rabbaani yi la wax waaye waxuma tarbiyatan asriya ñu bari nag boo ne ne tarbiya léegi ni ñuy yaree ci wàllu àdduna lañ lay wax waaw xam nga gone yi nii ñu mel taxawas bi def nii na yooyu la ñuy wax maanaam bëgg maanaam nit ko wax éloquence lay doon silvi seen seen xel mi mépp nu muy lijjantee ba am alal dégg am lii am la loolaa cey ne te yàlla dara loolu du tarbiyatu rabbaniya tarbiyatu rabbaniya da ngay mën a lijjanti àdduna ba noppi fees dell ak yàlla loolu moo amatul wala bareetul yàlla noonu yàlla fayal mag ñi dégg nga loolu bokk na ci li ci li ci fiyee ba tey xultatul ulamaa bi salaat mooy boroom xam-xam yi jaxasoo boor yi ba ëmb seen sangal loolu fiyee na ci dégg nga muy juróom-ñetti mbir yoo xam ni moo ko fi delloo si li ko fiy jëlee. li ko fi jële yomb na mooy tasiiru nikaa na sëy yomb rek su ko defee ña toog mu wóor leen da leen a jafe te jafe ne leen ñoom dinañ yëng ni kon am na lu xew kon boobaa léegi seen problème dana dana jeex bi ci des mooy taqwiimul maamili dégg nga mooy ñu ñu ñu fexe ba créer ay béréb bi liggéeyukaay ñu liggéeyul ñëpp mën a am lu ñu kër këri jàpp ca am dara ba kenn dootu leen mën a korompu ci dara ngir ñàkk bi ci des mooy dafa umma saturtul iqtisaasi iqtisaadi wilaadati wala taqtiyi wilaadati sax anil bilaad mu assatu alif noonu seen faa googu nga xam ni dañoo tëral pour da bàññi njurum doom ak foreel koog yooyu te lañ ci jublu sax mooy dagg ko moo tax ñu éleer góor jigéen moom moom ndax moo leen gën a capable moom moom da far dagg du am moom da def su ko defee nag loolu ñu ñu défendre ko dàq ko ci réew mi maanaam mu jóge fi définitivement loolu itam bokk na ci li ko fiy jële wa axsu walaati umuri diini ala masuliyatihim ku lan ñi nga xam ne ñoom lañ teg ñoom ba kàddu giine ji ñu jiite ñu mbir mi ñu jël ci seen responsabilité ba mat def ci loo defal la ca mat a wax ñu wax ko na ca mat a def ñu def ko loolu itam bokk na ci li ko fiy jële yàlla nañu yàlla fayal sëriñ Mor mun Muntaxa Mbàkke te yàggal ko fi ndax jamono bu ci jotee war tee wax lam te wax war la tee wax ittihaad bu kawe la am ci delloo ginnaaw yu mel noonu dara bu ca yegg fi moom am buntu pour war a jàll ngir moom kon yàlla na ko yàlla fayal eh, lii buñ ko defee mën na fee jóge léegi nag bi ci des mooy ku ko def lu ca war ku ca def lu ci war mooy yonent bi dafa wax ni lahana allahu almutashabihina bi rijaali min annisaa wal mutashabihaati bi nisaa'i min ar-rijaal nee na yàlla rëbb na góor guy nuru nuru lu jigéen waxuma sax def yooyu de waaye sol mbubbu jigéen ak nuru nuru lu jigéen ak lëcam lëcam yi def sextam yi jigéen képp nee na yàlla rëbb na ku koy def ba tey rëbb na jigéen juy def euh, yëfi góor di sol mbubbum góor ak di góor góorlu fii nag jigéen soo ko yoree muy sa soxna sax lu mu gën a nuru góor gën laa soof jigéen juy góor góorlu moom xanaa ca liggéey nan ko euh, mu a doy waar kon yàlla nee na rëbb na góor guy jigéen lu ak jigéen ju góor góorlu waxaat addis moom yonente bi ni ma ida wajadtum man yaamalu amala qawmi lootin na saa bu ngeen doxee ba seen bët tege ci kuy jëf-jëfu nitu loot ña na ngeen rey ka ko doon def rey kam ko doon defanteel saxaaba yi ne ñetti reyin am ñu ni nim leen war a reye ci xaddu xam nga bu dee njaaloo sax mu yàlla baal ci góor ak jigéen bu dee ku sangewul nga xam ni amul soxna téeméeri yar nañ koy dóor bu dee ko sangewu muy ko jigéen ko wala a mos naa dégg alxëy am soxna dañ koy rey dañ koy dugal ci kàmbu rey ko sànni ko ay xeer raj mu ko waaye góor jigéen moom suñu borom nee na moom ku ku mësul ku ku sangewu ak ku sangewu la ci yem ku ko def ku ne bañ teg ci bët rek tam tam tam nekk mu kàllaf nga xëy mat na mu kàllaf rek am na fukki at ak ñett nee na ko nañ ko rey ka ko doon def ak kam ko doon defal saaba yi nag indi ñetti rayante ñu ne nuñ koy rayee ñu ne dañuy gasu kàmb comme ni ñu rayee ku ku def naka sul noonu boobee léegi ba kàmb ki agsi ko ci déeray baatam ñu cëppeel ko ci mbooloo tiim ko yor ay xeer di ko sànni di ko sànni di ko sànni ba mu ñu génne ko ko kenn ki loolu la wax borom xam-xam benn bi loolu wax ki ci def déedéet kàmb googee dañ koy taal sawara ba mu tàng ba bërëx bërëx ba mel ni kuy kantu ñu takk loxo yaa tànk ya guute mbaay sànni la borom xam-xam bu boo rayul la wax Ibnu Abbas moom nii Ibnu Abbas nee na ñoom ñaar dañ leen di yéeg ci étage ba gën a kawe ci dëkk ba jàpp ci seeni wax mbooloo tëggatoo leen juutal leen ba bopp yi lang ñu créé mbooloo mu yore xeer taxaw ci suuf ñu bàyyi leen ñu ne xamañ ña taxaw jekk leen na ci xeer Ibnu Abbas nee na noonu lañ leen noonu lañ leen war a rey mu ñetti reyen yooyu léegi kon loolu de xanaa léegi def naa criminalisation ko gën a woyof te léegi nee nañ criminalisation jaru ko daa loolu daa garaaw bu ëpp ndax dégg buñ ko defee day ëpp dégg nga duñ leen jàppee comme kuy jaay yambaan ak wala dégg nga bi moom daa ëpp ëpp xoolal bi xanaa lii moo gën a xanaa kay loolu ku gëm yàlla tey atte woo ci atte bi yàlla su fekkee laantu taqoo minhum tuqeetan den waxan ginnaaw mun nu cee atte woo ndax am na karton bu nu tiim te libéré wuñu tamit nag suñ ñu mayee ci tolérance yi dara ci ay loi ba wax ak criminalisation waay waay warut a garaaw ndax lii ko gën a garaaw fuuf lii ko gën a garaaw fuuf eh, su ko defee loolu moom lañ wax ni moo war ci ki nga xam ni gis nañ mu def ko kon def naa lii mooy li ñu tënkoon pour jëm koo leeral eh, day lu jafee wax nag ndax li tax mu jafee wax mooy bokk na ci sax yi ko fiy jële mooy nga gàttañ lu ci communication bu jëm ci moom information bu jëm ci moom nga gàttandu ci ndax fii ne li ma ci xam lépp ak gëstukat yañ ci xam moom moo ko wax ndax soo ko waxee day am ñu fi ñu fi nekk ñoo xam ni léegi ñu jóg dem fa may wax fii ne am na ñu bëgg a jubati dañoo xamul fu mu ne sooy wax ak nit ñi danga dangay googu loola nag ndax fii ne bu ma waxaan fa ñuy ne rek ak na muy demee am na ñu duñu yeggale conférence bi dañoo ci ku ndànk ndax bëgg na am na ñun dañuy bëgg a sikk waaye duñ xam fa sikk soo tàmbali nag di développé bu mu ngay tàmbali naa béréb sàngam ña fay ne jigéen ñoo xam ni dañ lii la ñuy sol ne am na ko loolu rek la doon wër te xamu ko su ko defee balaa waxtaan wee yegg wóotul fa lay yegg la jéeg guddeem ndax yaa arrangé nga ko su ko defee nag loolu moo waral waxtaan wi du mën a yegg fa mu war a yegg dëgg nga xam ni am na ñun buñ jógul itam buñ lu mu néew néew dina ci am bu subaa ci yor-yor dañ fay dem moo tax nag yu ci bare da nga koy xam nag moom teg sa tànk kon bokk na ci li ko fiy dindi nga bañ a xóotal dëgg dëgg dëgg dëgg. ci ci maanaam euh, information ba ci jëm ndax ka ko bëggoon a xam te gàttum xelam ak ñàkk xam nga yow boo ko ubbee xamal amal na la njukkal amal nga ko njuk amal na la njukkal ndax booy pare muy dem looloo tax nag gàttañ lu ci di ci wax système la bu koy bu koy daaneel mooy buñ ci mënul dara nañ ci noppi rek di di ci mën di ci mën a xóotal ndax bu bu ñu dee xóotal di ko wax rek léegi ki xolam am feebar il faut mu jëm koo jëm koo seet rawatina nag léegi yow may borom xam-xam di gëstu nga koy wax naan dërëb sàngam nangam di di tudd ñooña ba mu xam ne foofa la te bëggoon na koo xam ne ko xamul ak leneen ak leneen kon gàttañ lu ci communication bu jëm ci ñoom bokk na ci di daaneel ndax gis nga àdduna sax ñu bari sa sëriñ wala sa mouvement ba nga bokk boo ko bëggee yëkkati ñaare da nga cee faral di waxtaan ak di ca wax waaye soo bëggee sib solo nit bëgg koo daaneel ñaare doon na nga wax loolu da ci am sëriñ daam jenn yàlla na ko yàlla yërëm te doole leeram mu daru salaam jenn ma nekkee ndar ka jàng damaa ñëw nuyu ko mun a foone ma ne ko ndar lu ma fay def man ko damay jàng xam-xam mun ma ah daal di mooñ noonu muy def ndeysaan ni ma ah mbaa ah, nga lay jàngal ay taaliba lañ ma ne ko ah déet ay sunni yu lañ nag mun ma ah dinañ wax ci sëñ bi dara ma ne ko déedéet nag dañ cee noppi mu ree ni ma nopp jooja de ay wax la ndeysaan noppi jooja de ay wax waaye am na noppi googu système la bu doy waar mooy buñ ci mënu dara nañ nañ ñu patt buñ dee publier loolu bokk na ci lu koy lu koy lu koy gën a daane waaye saa buñ ci dee wax di ci wax di ci wax rek dañuy am bës kon noo ngi jéggalu bu baax a baax xam naa waxtaan yi ni ma ko waxee demee rek mooy ah, am na ci lu des ci lu ñëwee yegg waaye sunu gëstu ak sew siwaan yi ca biir am na ci sax yoo xam nañ ko waaye lañuy bañ mooy ka koy xam te du ca mën a mucc bañ a xamal dañu xam loola di ko yóbbee yóbbee lor wasalaamualeykum eh, wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi suñu kilifa yi toog bu baax a baax boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo